ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci Bambilor info ngeen di fi jotee xibaar saa su ne xibaar bu tiis lañu leen indil gannaaw ba nga xamanteni bi rek jot nañu ay confirmation ci njabootam mom dembi Fall di artiste comédien bobu nga xamanteni bi ràññee ngeen ko lol ci euh, théâtre réewum Sénégal mom dembi Fall nak mo ñak bakanam niki euh, tay ji ci suba gannaaw ba nga xamanteni ne febar moko moo ko di tëral lu yàgg euh, mu ngi xewé nak ci diwanu keur Massar mom dembi Fall nak bu ngeen fàttalikoo diggante atub 1977 ba joni tay danaka rek joué na ay rôle yu baree bari mom nak danaka dal dafa muju rek ñak bakanam fekk ci ñi nga xamanteni ay ay naataangoom la woon kon doon yëngu rek ci wàllum aar euh, ji xam ne rek ne moom Demby Fall daañu ko jëbal boromam ca diwaanu euh, tiiwaawan ñuy leeral rek ne moom Demby Fall dafa mës a sàkku ne bu génnee àddina na ko sëriñ Moustapha si di guide des Moustarchidine daal di jiite kon nag loolee xëy na mu daal di antu ndax itam daañu ko jëbal boromam foofee ca diwaanu Tiwaawan na